camion bi firgo la kon ndar la jógee. bis bi bis bi ko ndar quoi. paal paal ci gàmm gi. waaw waaw si gàmm gi waaw. waaw léegi après bi ñu demee xam naa kii dafa yàkkamte pour jaay pour pour jaay jën yi mu yor. kii di dem quoi. la yàlla def xama camion moo génn troisième position jaaxaroog bis face a face. xam loolu dafa métti quoi indi sëbër il faut ñu daw ndànk. waaw ndax maanaam lii gàmmu la rek. day weesu quoi il faut ñu daw ndànk il faut ñu jàppalante. te dimbale doomu aadama yi quoi. ndax at na amul solo quoi. waaw loolu moo gën